abonné wul ci suñu chaîne bii di Khelcom production te bés cloche de notification bi ngir mën a jot ak fépp foo di nekk ci àdduna bi ak fépp foo di nekk ci àdduna bi magal gi benn baat la ku dib teer bi na déglu xéewal sëñ Tuubaa dana woon koo xam ne sama mbég sa mbég a sant la ma ci yàlla kon koo xam ne mbégum sëñ bi du sa mbég mooy sa yoon ne ko ci ku dib murit neel teg te déglu sëñ bi ku ci bokkul sa yoon ne ko ci génn ci ku dib teer bi na déglu xéewal mhm. sëñ Tuubaa dana woon koo xam ne sama mbég sa mbég a sant la ma ci yàlla mhm. kon koo xam ne mbégum sëñ bi du sa mbég mooy sa yoon ne ko ci ku dib murit neel teg te déglu sëñ bi